waaw ah, je crois que euh, on problème là. léegi jours yi bu amee loolu yi xanaa ñu dama doon wax chaque jour que ni final dañ koy joué mais dañ koy gagné euh, je crois que ñoom seen bopp final lañ jóge daaw kon ren final bi du man maa leen di wax lan la ñuy def ñoom ñoom a gën a xam lan la koñ bi xaar ci ñoom quand waa waaw vraiment tey aussi ñu remercier nag vraiment les supporters de la l'ASC Fogny ak aussi les dirigeants parce que seen taxawaay vraiment amul mucc na ayib quoi. Ah. So mot de la fin nous nous tous les au ñu nous à final parce que nous un très bon match hein? est-ce ku y a un non est ce que monde, Vous quoi <laughs> non non non euh, dama bëgg gagner la bëgg ah, la bëgg <laughs> <laughs> man la Abdou Ndiaye père quoi mhm. euh, ñaax bi comme toujours rek ñu di wax quand même moy que né ñun football. ñu ñuy encadré comme ñoom ñii tey ñun ñoo nekk ci encadrement di encadré duñ leen wax lu dul li nga xamante ni moom lañu sunu mag ñi daan wax gagné siggi même bu ñuy perte ñu siggi l'essentiel mooy que ne bu ñu demee terrain ba daal ñu comporté ba fa comportement boo xamante ni sawaay ñun ñi nga xam ne ñooy seen i papa ak seeni i mag duñu ci am benn problème parce que xam nañ ci football ne lépp am na surtout am na match nul am na défaite am na victoire bon rëy ci bopp moom je pense que ne ça dépend ci ñun ñi nga xam ne ñoo topp ci ñoom parce que tamit am na nu ñuy comporté woo bon mën na am vraiment mu am pression bu métti ci ñoom mais boo xoolee sax ah, entraînement yi xay na dañ ko xaw a sax léger ñun tey lañ fi commencé ñëw loolu lépp bañ rek pression bu bari pression bu bari mais je pense que ne comme ñoom tàmm nañ ko encadré ah gone yi tàmm nañ ko encadré presque seen parce que parcours cadet yëpp coupe yëpp ñoo ko jël. kon je pense que ne ay xale lañu mais tàmm nañu finaal nag moom. waaw supporters yi vraiment seen comportement ren moom dañuy wax mention spéciale pour ñoom parce que dégguñu ñu saaga déguñu ñu wax lu ñaaw dañuy wut seen i jëmbe ñëw sol seen i rouge blanc supporter vraiment ñun kontaan nañu lool ci ñoom d'ailleurs am na loo xam ne sax ñu ngi koy préparer pour ñoom parce que vraiment ren moom kontaan nañ ci ñoom lool quoi. Mhm. sama mot de la fin xanaa di ñaan yàlla rek ñëpp yàlla may leen jàmm may leen wér pour que jour final ba ñoom ñëpp sawaay ñu nekk ci jàmm di ñaanal ñaari équipe yëpp dara bañ leen a gàllankoor ñu ñëw football final bu fair play honoré vraiment dëkk bi yëpp ñëpp xam ne vraiment final bi ku gagné que le meilleur gagne je préfère nag foo ñu gagné mais daal vraiment bu ma ñoom ñëpp ñu ñëw parce que ñun moom loolu la loolu mooy sunu toogaay koñ yëpp sunu ay doom rekk a fa nekk kon daal dama leen di souhaiter bonne chance. salaamaaleykum man la man la Ameth Diagne euh, dirigeant ci ASC Fogny ay bés yu néew. Mhm. Euh, pression bëri foo ñu amoon terrain fi mhm. ñu joué ci fi ñu jëm ni dañ ko ñemee parce que ASC foo ñu ko ko xam ku nekk xam ni euh, équipe la boo xamante ni équipe bu finaliste la quoi parce que ñun ku dégg ASC foo ñu ku nekk xam ni équipe bu final la ñun chaque année suñu zone ñëpp xam nañ dañuy finalu waaw. ASC foo ñu vraiment moo gën a doon équipe bu mag tey parce que Tivaouane tey booy tudd ASC Fogny booy tudd équipe yu mag yi maanaam ASC Fogny mooy numéro un booy xool waaw. man euh, dañ ma gën a xamee nag ci membre ci parti ñu ma gën a xamee mooy côté mystique bi quoi. waaw te ngeen yaakaar booy def ngeen def seen xel entraînement yàlla dafa def ne defuñu ci benn xel booy amul benn booy bu ci gëm mystique ah. waaw. vraiment ñun liñu war ñang koy def ñom li leen war ñang koy def non préparé wu comme comme date quoi parce que équipe bi dafa don dafa don dafa doon ASC Foñ dafa don koo xamanteni vraiment yag nañu yag nañu finalu quoi ñun ñun fiñ jëm ni ragaluñ ko parce que yag nañ yag nañ fa dem yag nañ fa taxawal suñu doomu koñ quoi wa lolu mom yalla def na lolu lepp nak ci cadre supporter rek lañ ko tek non violence. violence depuis foo ñi ba mu commencé nawetaan yi ren ba mu commencé ba léegi seen président maa ngi koy nuyu di Volvo vraiment loolu da koy daw aussi tamit quoi moom boo waxee mu la non violence bëggul booy déborder bëggul booy saaga boo xoolee ren ni booy doxalee vraiment ah ñun ñëpp dañ ci ànd ak ñoom parce que dañ ci kontaan quoi parce que booy vraiment ñoom il faut tamit ñu remercier leen quoi parce que ay jàmbaar lañ booy booy supporters yi parce que li leen war yëpp ñoo ngi koy def. parce que lima leni leen ñaax lenn kessa la ah muy ñu préparer wu parce que ñun liñu war liñu war yépp ñun ñang koy def waaw ñun côté bobu mom liñu war ñang koy def supporter yi leen war ñang koy def comme li ci dess comme ñom la quoi voilà lima leni dolé ñaax rek moy ñu dolé gor gorlu inshallah yalla may ñu dam ñu indi ko ci ci koñ bi kilifa yi yi nga xamni ne ngi suñu ginaaw di ñu jàppale depuis bobu légui xam nga ak supporter yi vraiment amuñu sen sen sen sen gërëm quoi sonn nañ ci ASC e bi li leen war ñëpp ñu ngi koy def foo ñi kenn nelawatul guddi gii nii muy paa yi mag ñi maire yeeg ñëpp chaque jour ñu ngi ci leen war ña ngi koy def kon li ci des mooy jour yi ñoom ñoo ci des fi mu toll nii ñun suñu suñu waar ña ngi koy bay quoi instant bii nag ñu ngi leen di ñaax nag parce que bëgg nañ vraiment indil ñu coupe bi suñu quartier. waaw rek la la leen ñaan man yo man yoruma musique bi dama ci dama ci bokku rek. comme yaa ngi commission musique. dama ci bokku mais comme yaa ngi commission musique mas bu daan tolu fi da nga xam est-ce que ñaata mën nga ñame tour rek. non non non lool lool mom vraiment lool non lool mom vraiment non vraiment lool mom lool mom mënuñ mënuñ ci ci wax quoi waaw parce que dafa am ñeneen ñoo xam ni ñoo ñoom ñoo jiitu ñun dañoo top seen ginnaaw rek waaw muy ran ak ada ma ngi leen nuyu xama ak bassis xama nga waaw ak euh, Mansour. xam nga vraiment ak yeneen booy yi ciy jàpp yëpp quoi waaw. ñu bàyyi ñu bàyyi nga nga tàggu. waaw li may tàggatoo mooy yàlla nañu yàlla may ndam rek di sant waa Fogny gépp di leen gërëm ah waaw. waaw salaamaaleykum man Pape Demba Koumé je suis le capitaine hmm. ci wàccaa bi yéen. waaw yàq sa yàq sa équipe. nu ñu joué woon pare nañu ñu ko préparé pare nañu ko pare physiquement mentalement lépp pare nañu. Hmm. par rapport par rapport ak gàmmu gàmmu gi jóge toog ngeen ay bés entraînement leen. final bi ak Gambie gi soriwul dugul fan toll ci entraînement yi. parce que ni ma ñu ngi pare nañ carrément. waaw loolu la peut-être Gambie gi amoon na toute rupture mais quand même a bien travaillé après la gamme hmm. mais quand même di door chaque jour chaque beli entraîné hmm. ba na niveau bi yëpp ñëwaat na di entraîné maanaam teewul yàqu si dara quoi yàqu si dara. mais am ngeen problème terrain. waaw waaw gars terrain ak matinal bi ni matinal ko entraîner motax ñu jël matinal ci entraîner wa lolu ci dara quoi parce que deug la préfecture suñu terrain la won mais après dañ ko occuper nak gàmmu bi après ñu jël suñu temps matinal chaque jour ñu fay dem terre yow dama sa ko def entraîner wa tamit ngoon gi di ñëw di entraîner di def matin soir durant après gàmmu gi mak man léegi mak mo yaakaar naa mom do du fo ñi ma di wax si li fa quoi kii mag rek.

te booy tamit ñëpp ku nekk ngay compétir chaque année ngay compétir après nga ñëw jouer nawetaan yaakaar naa ne moom foofu la instant bi nii ku si nekk instant bi amul expérience parce kenn ku si nekk amuloo dund parce que daaw dem nañu final ñu gagné ñu doon mais quand même di sant rek waaw yàlla mel na ren dem final kon nag ñun daaw ndax ñu ñax si final xam nañ nag loolu duñu dal incha allah lépp xam ne jël nañ ko pour ba xam ne daaw bu ñu yàqul si final loolu nga tegee ne ren moom yooyu ñoo ko santero suñu final bi xam nga ñoo pour gagner seen fois ñu ko may dara nag ñu ko may dara pour luñ may ñu jël ko mais la nga war a mën a permettre sa waa koñ nga xam dañuy seetaan après vidéo pour pour dalal pour dalal seen xel waa di wax nag waa Fogni waa Fogni wax waa Tivaouane surtout waa Fogni del naan nag xam nga nañ dal seen xel li xam ne match bii nii du match yomb de lu ñu soxla lépp loo xam ne war na ko si match bi loo xam ne bi joueur yi def si terrain non instant dañ ko bu jaree dees dees teere ba mais incha allah final bi dafa gagné indi ko fooñi parce que dañoo sonn mag yaa ngi fi xale yaa ngi fi xam nga supporter dañoo sonn quoi franchement supporter dañoo tax ñuy gérer ren jii final bi supporter lañ koy may parce que gis bu baax ren moom fooñu ne lu muy lu mu ñëwaatee waaw ak maire tamit gis nañ seen ñaani paa yi xam ren moom fooñu moom franchement amuñu kenn seen fay quoi ñëpp gars yi xam nga gis nañu taxawee si gars ak joueurs yi taxawee joueurs yi ñu condition yu poussin yu baax la ñuy teg. yi foofu la yoo xamante ni war nañoo mën a jëlee jël bi dul ko bi indi ko fooñu. kon tey instant bii nag rek di leen ñaax. ñoo wax paa yi maire yi gën ñoo yokk ñaan. xam te ne ay ndaw rek di dem di wuti ñaan rek ñoom ñaan ñaan lañu xam yàlla may ñu dam ku bi jël ko indi ko fooñu. Hmm, ci côté loolu ñu ñaax ci affaire non violence non ren moom ren ku gis fooñu ren ku xam fooñu dëgg dëgg dëgg. ren fooñu ñu ñëwee.

fair play dañuy ñëw ñu ngi def ay fair play sama tër supporté xam nga joueur def ñu yor incha soo amee looy ñaax moromu joueur yi ci ci terrain bi ñoom. non sama moromu joueur moom ñoom saa kenn ku si xamul la war kenn ku si xamul la war si match bi moo tax chaque jour gars yi ñu ngi entraîné di yor fayal teel fayal teel la ñu ñëw di kon supporter yi instant bi ku ne la war ku ne xamul la war si match bi kon dañuy ñaax rek xam nga képp ku joueur nga gën a concentré nga am kon match bi nii nii loolu match bi ñu perte hmm. képp xam ne war naa mën a dugg si terrain bi foofu rek bu degee si terrain nga def lépp loo mën def sa fula sa fête ak sa personnalité nga xam te ne match bii nii match bi ñuy ñàkk la mooy sa kàddu bu mujj sama kàddu bu mujj mooy di gërëm di gërëm waa Fogny di gërëm dirigeant yi dirigeant yi ñuy sant bu baax a baax dana gis seen taxawaay di dalee prési wàcc suuf ñëpp dirigeant yëpp waa commission ñëpp nañu sant bu baax a baax xam mooy gars yëpp ñu baax ren moom gars yi yëpp ñu leen sant bu baax baax wa franchement jour moom ñu sant ñëpp parce que day ci sa taxawaay si jour yi jour amuñ amuñ benn problème franchement depuis ñu commencé ba tey am benn jour bu ne ah jox na lii wala am na lii problème bi noonu non gars yi am problème gars yi taxaw si jiitu ko mu jeex xam kon nag sant ñëpp quoi sant waa Foni dee naan nag non gars yi dañuy taxaw xam ne mas bii nii non du mas bii ñàkk. asalaamaaleykum man la Insa Fall président ASC ñu gis ni yaay président Aïssa foo ñi foo ñu dem final match bi des ci ay bés foo leen toll toll ci wàccaay bi. waaw ah, ci wàccaay bi daal on est frappé parce que wax dëgg yàlla lépp lu waroon rek def nañ donc euh, depuis notre demi finale yi ba léegi ñu ngi en tête vraiment ils sont sérieux ñu ngi ñëw heure entraînement li ñibbi heure donc euh, vraiment on est fin prêt. ngir fan yi ngeen amoon jafe-jafe terrain est-ce que loolu doom ci esprit booy waaw ah, c'est vrai que nii fan yi nag amoon noonu jafe-jafe terrain ndax gàmmu gi hmm. mais gàmmu gi tamit ak lii moo ànd hmm. mais néanmoins booy yi fexoon nañu ba aménagé benn terrain bu ndaw di fa entraîner yàlla def na au moins avant finale bi cinq jours yu ñu am daan ko mën a entraîner fii sapeur pompier sa sa équipe ay cadets yu di déclenché est-ce doom benn événement bi muy def seen xel que première année ñu yeeg final dem cadets rek fi yëpp senior finalu daje équipe mën a célébré ñu yàgg dajeeg moom est-ce doom lu muy ci seen mental waaw bon peut-être mën na si am mën na si ñàkk am. parce que préparé nañ leen. Mhm. on les a à ça. donc coach bi moom ñëpp xam nañ ko. Modou donc vraiment préparer na mentalement physiquement war nañ ci mën parce que déjà ñun loolu mooy suñu objectif sax quoi parce que actuellement nii objectif bi mooy dem di wuteeti ay jours sax dañ ko bëgg parce que vraiment pépinière bi fi nekk pour les leen jàppalee rek ñu ñu waaw lu di a ñaax pour bi c'est deux raisons ou trois ou trois même déjà moi quartier bu ñu nekk foo ñi quartier bu mag la donc ñëpp bàyyi seen

supporter cette équipe Nous la. mot de la fin. mot de la fin comme on a l'habitude de dire c'est une finale c'est une fête bon mais une fête aussi il faut la gagner donc euh, c'est vrai que je suis président mais di aussi Salifa parce que nous sommes tous les de